bismillaahi moom mi may jaamu bamtala def dara asalaatu wasalaamu ala nabi may dara wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi a Cheikh Ahmad Bamba bala ay sa moo di dara ay Seex Seydi Muxtaar ma dëggu ca àllar ba jàpp am ci juróom ñaari ati xilaafa ji di soroob yal ko ku tedd ki terook leeri sëriñ baara nangul ko ay jëfam ci yoon wi mooy doomi sëriñ baara ki ko wutu tey ku ñu taamu ku teddi ki yàggal ko ba xayru anaami damaamam wax mu doon ca dara bu fi yàggee te amuk wér waa réew mi danañ kontaan ku am ci leeri aw turam yow dootoo ñàkk dara أتم بخفلي أدي نرى المنطقة دي أكتوبر تروي دالم بودرا تكنز مويسيس كون دايدون جهات ستة أست أست نرسد والله يا يري درا الخميس ألقي دون sa fukki fan ak juróom ci bopp xilaafa gi yàlla na la sottal dara amin bi jaahi ahmad al xadim moom la fi teg bu la ay cat jege bu dara man ci yow nangul ma tey ji ma doon alkaatib muridiya turu général bi jox naa lako hadiya man duma dara nangul ma ko ngir sama mi la fi teg te fonkum ma lool def ma ni mu ma def ba may nduru dara jaayante na ak yow ci tooli Bamba fépp fas yéene liggéeyal yoon wi ndax jëf rek moo di dara damay takkaat sama laxasaay maa dib soldaaru Bamba di nekk sa alkaati buy géetaru te ndedduma dara doonoon naa fi ab xaj bub sëriñ Bamba bu daan baw mu soppi ma gaynde bu daan ngaru turam man mi kara mu may ma may kan law ñi tañaañal tañax tañax ba ñëw ci biir Bamba fépp ngir xam ni moo di dara jërëjëfe Sëriñ Tuuba la gone yéppi fowe moo ma may ma siiwal ko ndaw ñi ndax moo di dara jaamu yàlla gub dara man ko yàq ndaxi imaamu akbar moo sax leen ci moo di dara mbàkke tey ji fi ba beneen yoon dégg mata nangul ma may ñaan donte tekkiwu dara mbàkke tey fi ba beneen yoon dégg mata nangul ma may ñaan donte tekkiwu dara